gannaaw bu ma nuyoo di leen tatagal yéen ñëpp di firndeel ne tey am naa mbégte bu rëy boo xamante ni fu ma ko nattu rek weesu na ko mbégte boobu du kese tey laa war a jël fonction waaye nekk na lu am solo bilee ministère moo war a jël tey ministre di finance et du budget nekk na loo xamante ni lu am solo la ba tax na dinaa si wone taxawaay bu am solo boo xamante ni du si rëcc yoon ndaxte ministre du finance et du budget nekk na ndomba tànk boo xamante ni bu diis la ba tax na dina ko jéem a assumer bu baax a baax ba am si ay jéego yu am solo ba nga xamante ni askan wi yépp dinañ si am lu leen neex ndaxte bokk na si li ko waral réew mii di réewum Sénégal jox na ma lépp li nga xamante ni yelloo naa ko donc tey jii bésu rendre hommage la bésu delloo njukkal ask askanu Sénégal ba tax na dina yokk yi tey ak pas-pas yi ba amal fii taxawaay bu am solo ñeel bile poste waaye nag bés bi dafa am solo lool ci man gannaaw bi nga xamante ni kii di sama maître sama mentor bi nga xamante ni tàggat na ma moom lay wut tey ci bile poste tax na ma am mbégte bu rëy boo xamante ni fépp fu ma ko natt rek da koy weesu